président mu ngi ñëw di xool choc bi di daanu mu wàcc oto macha allah président wàcc na pour xool choc bi nga xam ne maanaam mu am fii si route bi voilà loolu journal yi moo président yi nii wàcc moom di xool sax voilà